salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sang bi sëñ Khatim dégg naa ci sa biir wax nga nettali xadis yonent bi salaahu sallam mi wax ne kullu bidaatin dalala wa kullu dalalatin fi naar bépp bidaa dalal la mooy réer la te réer yëpp maanaam sawar lay jëme borom d'accord nañ ci loolu waaye sayyidina Omar day maanaam bi nga xamante ne dajale na maanaam sahaaba yi ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy la ci mbooloo te boobu loolu xewatoon ci jamono yonent xewatoon ci jamono Abubakar Seydina Amar dajale sahaaba ya ba noppi te naan ni'matil bidaatu haadihi maanaam bidaa bii bidaa bu baax la bidaa bu rafet la ndax bidaa yooyu ci kullu la bokk wala déet wala Seydina Omar dafa wax ne bidaa la te du bidaa wala déet te bu boobaa bu fekkente ne Seydina Omar dafa wax ne bidaa la te du bidaa kon bu boobaa wax na loo xamante ne loola bokkul maanaam la muy tekki mag yow yëpp xam nañ ko te kon bu boobaa askane la nga kenn ci saxaaba yonent ne dafa wax la ca gannaaw dëgg bu fekkente ne li mu wax ne bidaa la bidaa la waaye bidaa bu baax la kon may laaj ndax yéen lu tax ngeen d'accord ci bidaa bu baax ci ñenn ba pare ngeen bañal ko ñeneen ci ñi nga xamante ne ñoom bokkuñ ci maanaam bokkul ak ñeneen salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw cheikh bi ñu lay nuyu bu baax a baax a baax يونت بي صلى الله wax ne kullu bidaatin dalaala te Seydina Omar dafa wax نعمه nicma bida nicmatil bidaatu haasi boo delloo si mbooleem borom xam-xam yi wala yu ëpp si borom xam-xam yi dañ ne bidaa foofu luxatan la lu tax foofu noonu bidaa mënu fa nekk bi jiitu mooy Seydina bi salaam dafa bok ñu mu ñu top seen doxalin kon top sayyidna umar top sayyidna umar top topp bi sallallahu salaa salaam ci ay ndigeelam ñaarel bi sayyidna umar moom li mu defoon nekku ne moo ko sos si diina te bidaa day nekk loo xam ne yow yaa ko sos si diina yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jiitu woon si naafila boobu ragal ñu farataal ko ci xeer yi mu far ko bàyyi bu mu ragalee ñu farataal ko ci xeer yi mu far ko bàyyi Omar xam na ne kuy farataal gannaaw bu yonent bi gannaaw bu yonent faatoo lépp lu ñu wàcceetu luy farat dootul am moom mu dekkalaat ko loolu mooy ñaareel bi ñetteel bi ijmaa la ndax ba mu ko dekkalaat ba mu ko dekkalee amul kenn sahaaba yi ko wax ne ko lii nii duñ ko def kon loolu ñaareel bi bi loolu mooy ijmaa la kon lii xam ne ñetti règle yu mu taxaw yoo xam ne kenn mënu ko tuddee bidaa ci sharia mooy bi njëkk Omar ci xulafaa raasiduun la bokk ñaareel bi Omar sosul mbir mi ñetteel bi ijmaa la ci diggante sahaaba yi kon lii nii mënul tudd mukk mukk mukk même bu fekkoon nit ku amul xel la sax xam ne ne lii mënul tudd bidaa ci sharia moo tax boo demee si ñi nga xam ne ñooy tafsir hadis yi dañ ne foofu bidaa lu ko tan la si wàllu làng maanaam gannaaw bi ko yonti bàyyi moom moo ko waat waaw mais nekkul mukk mukk mukk mooy loolu nekkul mukk mukk ne loolu bidaa la si sharia salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sang bi loolu nga wax d'accord naa ci cent pour cent moo di ne man gaw ma sax ne bidaa bi maanaam bidaa la dama gëm ne sunna la boo xamante ne yonente bi saaw sallam noonu la waaye su fekkente ne loolu la demee nag kon yàlla ne uzkurullaha zikran kahiran tudd leen yàlla lu bëree bëri صلوا عليه وسلموا تسليما جولي لين تي يونتبي صلى الله عليه وسلم استغفروا ربكم جيغلو لين سن بروم نيت جيغلو يالا تي ابليم جولي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم ابليم جيغ آه، تودو يالا ابليم كوكو واخ دغ كو واخ لا لين دوبيدا وارغا مانا سانيا واخ لي ني دوبيدا نداخ ليه sayidna Omar moo ko def dëgg la jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi waaye lii itam alquran moo ko tudd maanaa ndigal li bàyyi ko ci borom bi tabaraka wa taala jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu maanaam mu digal ko aw xeetam aw nit nekk ca loola ba ñeneen ñoo xamante ne gërëm nañ lañ nekk fekk leen ca loola ñu digal leen ko ñu topp ca kon benn bidaa amut ci loolu dama la bëgg wax rek ne kon li ngeen di tuddee bidaa loolu du bidaa mais sunna la waaye yéen yéen a xàmmehut sunna salaamaaleykum wa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dama bëgg nga xàmmee ñaar ci samay wax gis nga tënku gannaaw farata yi nga tënku si naafile sa la nga man si limal ko sa bopp tënku sa ne man lii laay def par suur loolu lu sax la ci lislaam wante teg aw yoon wax ne da nga naan ku may topp ci lii ngay tënku loolu moo saxul ci lislaam ku may topp da ngay tënku ci nangami astaghfirullah nangami laay ilaaha illallaah nangami nangami salaatu ala nabi suba ak ngoon sama yoon yi ku ci nar a nekk rek maanaam sama tariixa bi ku ci mën a nekk rek ci lii ngay tënku lolu mo saxul ci l'islam li sax ci l'islam moy nit ki sañ naa salam man way sañu ta teunk nit ñi alaykum wa rahmatullah alaykum wa rahmatullah wa barakatuh sang bi ba teunku ci aw yoon amé nga war ko mëna def muy muy mbax boba nga wara xamné ne alquran mo digle ne koku teunku ci lu bax lolu alquran mo digle ñu top ko alquran mo ne ittabia sabila man anaba ilayya kooku mooy kaw a matu jëm ci borom bi tabaraka wa taala kooku rek la la ñuy topp di kooku mooy sëriñ nag dangaa jaawatle moom rëddul yoon ne imposé nit ñi ne leen topp leen ma force déedéet nit ki mooy tànnal boppam pour topp kookule amul benn sëriñ buy woon nit ñi ci force kanaa yéen yéenay woon ñi kay naan da ngeen force bëgg ñu leen topp mu jaral leen lu nekk tax ngeen di yàq deri sëriñ si waaye sëriñ si moom forcé wuñ kenn sëriñ Tuubaa waxul kenn ne ko na nga nekk murit for force Cheikhu Tidiane ne ko na nga nekk taalibe Tidiane for force na nga nekk wax ndax ñoom seen taalibe yëpp ay muridoo na leen tuddee kon nag loolu li muy moo di ne ñoom ñëpp rek dañoo tënk tënk jele ko nak ci yonent yalla muhammad mu deppo ci mu dëppoog alquran ba nopi ñu sok ci soññee kep ko xamantene da nga ne ñom la bëgg a ki la bëgg andak ñu wan la ne la euh, kon nak manam yewit man limay def tang ko def alaykum wa rahmatullahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa serigne ma ngi lay nuyu bax dafa melni nak yaangi commencé tang de yaangi de <laughs> dafa melni yaangi commencé sens nak dila wax ne Eh, man waxuma la ne ben serigne dafa forcé kenn mu top ko waye sama yoon wi ku ci nek ma sama tariqa bi ku ci nek force da ngay teunk ci nangami astaghfirullah suba ak ngone force da ngay teunk ci nangami la ilaha illallah suba ak ngone force da ngay teunk ci nangami salatu ala nabi suba ak ngone lol mo saxul ci l'islam nit ki bu ko nexe mu tuddu yalla ñaar yoon sax nopi amna ci droit waye sama yoon wi de sama tariqa bi ku ci bok fo nga tank si astaghfirullah yi salatu ala nabi la ilaha foog nga tënku ci temer suba ak temer ngon lol saxul fenn ci lislaam bu le neexee nag nga teunku si way sañu ci teunk kenn alaykum wa rahmatullah alaykum wa rahmatullah sang bi da nga juum serign bi wooxut la pour nga top ko da nga ne ko yow la bëgg top mo xamne bu la teunkul ci mbir kon soo moytuwul soo jëfee tay su ëllëgee nga ba tebagul kuy àndoo ak moom ci noonu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne xayrul umuri adwamuha wa in qalla li gën ci mbir yi ak lu mu néew néew mooy soo ko tàmbalee bu ko baxat te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na def lu mu tàmbali dootu ko bax ci baax nit warul tàmbali lu baax di ko bàyyi dëgg la amna ci yenn nafila yo xamantene leg léeg mu def ci lim su ëllëgé mu def ci benen lim bu bokul ak bobu pour yombalal aw xétam kep waye nit ki nga xamantene dafa xaw ci aw yoon nga ne ko man de li ngay def la bëgg xam mu ne la nangam ak nangam la nga ne ko man de gërëm na dama bëgg a ànd ak yow ci li ànd ak moom ca loola alquran mo la digal yow ne la saxawal lim la digal bu ko bayet ya ayyul ladina amanu awfu bil uqudi na ngeen saxo pas-pas yi pas-pas yi na ngeen ko sam na ngeen sam pas pas-pas yi awfu bil bi alquran la awfoo bil ahdi innal ahda kaana masulan na ngeen matal dëhël ndax dëhël danañ ko laaj ci kanamu borom bi tabaraka wa taala koo xam force wuñ la nga taxaw ci kanam nit ne ko damaa bëgg nangam moo wax la nangam yàlla tabaraka wa taala moom moo la tënk ci mbir ma waaye du moom moo la tënk ci mbir mi ndax déggoo ci mu alquran nee fa man nakasa fa innama yankusu ala nafsi képp ku firi kóllëre gi na ko wóor firi googu mu firi kóllëre ci boppam la kon sëriñ si tënk giñ la tënk ñoom ñoo feeñ ci kaw mais ca biir borom bi tabaraka wa taala moo la tënk du sëriñ bi moo la tënk yonent bi saaw salaam moo la tënk ndax ci moom la yàlla wasal alquran ji te loolu nag mooy li nga xamante ne mooy dëgg soo firee yaa ayyuha alladina na awfoo bil uqud pas-pas yi adduna yi sax suñ ko fasalantee dafa war a mat astuma nag kon loo xamante ne kóllëre guñ kóllërante ci borom bi tabaraka wa taala dafa mat kon sëriñ bi du moo tënk nit ki waaye jaamu yàlla bi nga xamante ne moo àndoog nit ngir yàlla yàllaa ko tënk ne ko matal ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu